asalaamaaleykum wa rahmatullah téléspectateur Equivox TV yi maa ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen tey nag le dimanche 10 juin 2021 liñ fi indi nag xam ngeen ko gis ngeen sama ginnaaw noonu li ngeen di seen ci ay nit ay oto ak lépp li ko waral mooy làmb ju mag a fi am tey ku ko tëg jaw boroom ci am production soq ngeen xam ko ba Pikine gàmmu Gueye lébu gi dëkk Tëngéej muy combat boo xam ne daaw lañ ko naaloon corona bi yàqu ko waaye gis nga rek olof ne na bu yoon jeexul waaxu sul du jeex yàlla tey la ko dogal gis nga nit ñaa ngi noonuy dugg pool bu daaru Mamor doomu Faas jé ah Mbañik Kayre Mbañik Kayre doomu Boy Kayre ak Jacob Balde doomu Zil Balde muy bés boo xam ne tey làmb ñu mag la moo tax xulle ngay gis noonu sama ginnaaw gis nga li ngay seen ni yëpp ay nit la ñu ngi dugg si yaa ngi seen oto yi gis nga moto yi yaa ngi seen oto yi pour wan la que ni rek gis nga arène bi tey ni mu mel ah gars nañ nañ ubbi ci kaw nga nañu ubbi fan. fii yëpp fees na amuñu fan fees. dafa fees fa laa jógee nii mais amuñu fuñ toog. waaw waaw loolu la gars yi war a def parce que instant yii ñëw yi ñëwaguñ gars si bi te waa AS Pikine tamit gars yi ñëw. waaw soq dafa war a yëngal. tey loolu gis nga kon loolu loolu moo lay wan ne kon làmb ji làmb ju mag lay doon léegi ni ñuy def xulle mooy dañuy wàcc rek dem xool gis nga pour sécurité ba balaa ngay dugg ni ñuy passé gars yi visite. dañ lay seet ba xam ndax duggaloo fi dansé wala déet te itam masque yi gis nga gars yi dañ ko respecté gars yi dañoo respecté masque yi ku nekk ku nekk yaa ngeeg sa masque di dugg si policiers yi seet affaire yi kon daal tey moom soo bëggee dégg-dégg moom arène nationale moom nar naa neex benn ñi maa ngi lay bëggee tey jii moom lamb dëgg dëgg dëgg ku ko bëgg a gis rek tey moom yaakaar naa da nga koo gis kon ak càmm production du mën a ñàkk tey baaba jaw ak ñamu àndal noonu lay demee Modou Modou maa ngi lay ziar. ñu ngi dolli defe naa ne ci biir Thiam production nga bokk. yore organisation bi. tey lamb ji gars yi am na ku fi ku fi romb léegi ne ñu ubbi ci kaw parce que fee dafa fees ba amatuñ fuñ toog. sant yàlla rek yàlla xol lay fay. lamb ji yéen la rek. yaa ngi ko dogal problème mu daw. te des na tuuti ah dañ koy dañ ko bëgg man dama bëgg bëgguma seen kenn si mbooloo bi dama bëgg ñëpp am jàmm ñu toog si ko si fair play làmb kaf la li lu ndaw la si càmm position yeneen ñëw moo dàq làmb xol la ak boole loo xam loo boole amateur yi bëgg nañ loolu la rek wala li war a ànd daal waaw loolu la rek kon kon yéen dañoo remercier presse bi yëpp gis nañ seen liggéey. lépp solo ñoo far abaa ngi noonu. loo wax booy nga ne. waaw mais ñun rek la ñuy rek. mais est-ce que amu ngeen tey adversaire de taille Gamou Gueye. rek dañ koy wan na xale nga rek. waaw soq dafa am lu mu juumoon loolu la war a wane waat tey. te da koy wane si yàlla amul leneen dañuy ñëw jënd daaru bool bu bool bu daaru waaw Mamor Pass Mamor Pass li yóbbante <laughs> kook day <laughs> maa ngi lay ziar. maa ngi lay Mara. maa ngi lay fay ana waa Tivaouane. ña nga fa ña moom defe naa buñ la gisee moom ci CRC bu région de Thiès nga bokk yaakaar naa. effectivement loo fa yoreeti. bon man maa yor communication au niveau du euh, waa de la région de Thiès. ci CRG bi. Ah. tey boo gisee làmb ji mel nii mu mel nii mbooloo mi lu maanaam soq gàmmu géey waaw soq gàmmu géey ñaari xale yoo xamante ni kenn ku ci nekk dafa am euh, loo def ci làmb am foo jëmit ku ne mbooloo topp sa ginnaaw. soq am ci lu mu jugee mooy defet mu war a defaraat boppam gàmmu gëy ku ne xam na ci li mu jugee moom it ci ndam la jugee ci la toog kon nag tey làmb la joo xamante ni bu melee nii nii rek la war a mën a mel. Babacar waaw. Mara kontaan ci yéen ak seen ay cap maa ngi lay bëggee. <laughs> delloo nañ ko. tur la. man awa. ku la fi indi tey. soq dugub. soq sa dugub waaw. Ah, gàmmu gëy ndax neex est-ce que neex naa soq. ba mu rumbax. ba mu rumbax. rumbax nu ngeen koy def sooq bu ko jàppee dina ko sooq ba mu mokk rumbax yéen a wax sama papa moo fi indi sama papa building day ñëw jël ndam la ñu yóbbu ko Gàmbi amul leneen affaire bi soq la toog leen di seetaan da koy soq wal ko ba mokk rumbax dañuy jàpp rek ne nii këlëb mu dem kon ba ci kanam ma tey eh. tey moom suñu mbër lañu andi canta canta dus indi mbaxal bu tàng jër jër te la sa loxo nga ciy dugg lakk mbaxalu laxas la wala bu lakk mbaxalu biiru xar mën naa nekk xoolal kuddu xoolal kuddu nga xëy lekkee kuddu ñoom itam ci liggéey bi lañ bokk pour wan la lamb ni mu ne facteur de développement ñëpp a ciy gis seen bopp maa ngi lay bëggee rëbëge naa la yow looy jaay kon boisson jaay maa ngi ni <laughs> mu ngi dox bu baax waaw mu ngi dox foo jógee kon lamb ji bu jotee yéen di ngeen ci jaay ba gis ci seen bopp. bu baax a baax a baax. waaw ñoom bu ngeen bu sañu lamb day am chaque weekend. chaque jour lundi ba dimanche day am sauf vendredi. sauf vendredi solo moom boisson lay jaay yow looy jaay yaay booy. café laay jaay. café gaa mi ngi dox de waaw. ñun de bu ñu sant ci lamb ji ak ndox meeg yooyu. ak tàngal ji ak singom yi yëpp ji ngi ci biir. amiin waay yaay. ndeysaan jaaykat yi ci lañ bokku di. mbaam gàtt na waaye ci jur gi la boo gis nga ñi ay sandis lañuy jaay keneen maa ngi leen di bëggee naka la copain looy jënd yow sandis nga jënd. waaw man sandis laay laaj. bu ñaata ngay laaj. man man bu 500 rek baax na ah? <laughs> bu téeméer rek baax na. sa boisson. waa jeex na tàkk laaj XL. keese dem dem tëdd nelaw. na combat daa war a ñëw nag. waaw caatu. yow looy jaay yow. ay ginaar ak broset laay jaay. laay jaay. Ah, sant yàlla rek kon corona bi ma fi mu nii moom. jóge na fi moom nu toog rek euh, lamb jee ne affaire bi daal lamb ji la lamb jee ko yor maa la wax maa lay delloo ziar ba am nga jàmm sant Serigne Touba combat soq gàmmu gi yow xam nga leen yéen ay génération ngeen combat bi lu koy atte combat bi dina xeex nag tey ñoom ñaar bu kenn wariwul sax mën na jeexe si xeex dóor mu daanu maanaam xamoon ne ñoom ñaar yi ñuy wax di raayante dañoo xiifante ma sàcc wax la waaw dañoo xiifante yow daa mel ni gàmm war nga koo xam ndax soreewu ngeen fu ngeen dëkk Kër Massar ak xam naa soo xam naa gàmmu gay ñoom ñaar ñëpp dama leen a xam comme ni ma xamee ñi ma bokkal écurie waaw te ñoom ñaar suñ ma déggee ku si nekk di nga xam li ma la wax waaw dina ñoom ñaar ñëpp dañoo xiifante te duñ kenn kenn ku nekk du may sa morom dara combat bi du machine waaw dóor mu daanu mën na cee am dóor mu daanu sax laa si gën a yaakaar boo xefee kooku mooy booy sëy bu Kër Massar kaay kaay du mën a ñàkk eh, copain maa ngi lay bégee maa ngi ñëw gay gis nga gars yi ni ñuy visiter gars yi liñ fiy tere yëpp policiers yi dañ koy jàpp génne ko maanaam kenn du fi dugal lu ñuy tere B52 bëgg naa la gis nga kees gee xulle gis nga kees gee li ñuy tere maanaam ay parfum ay affaire loo xam ne rek mën na di danse ci stade bi maanaam policiers yi dañ koy saytu génne ko benn par benn ay birke dara te itam lii nag dafa am solo kon sécurité bi tamit jaaraamaa ñoom ay cigarette maanaam lépp loo xam ne daal mën na feen di danser moom du ñu bàyyi mu dugg fi gis nga ñëpp la ñuy visite waaw lii mooy passé visite xale yu jigéen yi boo xoolee jigéen a leen di xool góor ñi góor leen di xool pour sécurité kon jaaraama waa police ñoom tamit ñu ngi leen di bëggee. xool xale yu jigéen ziar naa la. xam nga Mbagnick Diouf Kayre. waaw xam naa ko. xam nga Jacob sama mbokk la xam naa ko. seen fu muy jeexee. ci bëri. fa waaw moom loolu laa gis de ñaari bërikat lan de. waaw ñaari bërikat lan de. ñaari la wax loolu. tey daa ni làmb tey neex na tey de tey bésu tey bi waaw bésu tey bi làmb ju neex la moo tax gis nga gars ñëw nañ ñun ñii amuñu si mbër mais dañoo ñëw seetaan si. parce que journée bee neex. bee neex. am na solo waaw. ah, ah, ah. yow am mbër man aw ma si ah, mbër de. yow moom parcelle nga jógee. man moom benn mbër laa am su ma se am mbër mooy Jacob. Jacob rek. Jacob la bokk sama mbokk la maa ngi koy ñaanal ndam nag. waaw maa ngi koy ñaanal ndam. am na solo maa ngi wàcc sama combat bi nag le 10 juillet maa ngi woo ñëpp nag man nag Baye Mandiaye 2 incha allah rabi maa ngi ciy woo ñëpp Babacar Baye Mandiaye 2 bu Géejawaay bu Géejawaay am nga adversaire de te ngeen tolloo nii rek sa waay na Baye Mandiaye 2 lay dóor nga daal kii défaillant la eh. déet waay 52 défaillant def défaillant bu mag kii 52 kaay sa waay na défaillant kii muy kii di Kolosaar guy gi moo ñu tax a ñooñ moo ñu tax a essane bëree bëreeguñu essane yi combat bi essane yi waa lamb taxoon nañ ko mais jotaguñu avance yaa ngi dégg loolu si daal lu may wax quoi waaw. di laati gars yi dañuy dëkkante de kii de day dëkkanteeg booy sëy waa mais lu xew. combat la amul combat aw na ñëw ñu bëre man ak moom Mori Cargo la waaw. nooy ay ah mais loo toppee booy sëy nii. dafa dañoo war a bëre man ak moom mooy taxaw. Mori mi sonal na la de. kaa ñu bëgg loo rek bëgg bëggam loo. kaa ñu bëre man bëgguma bëre ak moom. lu tax da ko raw dama ko soxlawul man xaw ma ko sax waxul waxul lu am. du dëgg. mu naan xaw ma xaw ma ko billaahi xaw ma ko. maa ñu bëree suñu Mori Cargo mi xam kan mooy Mori suñu bëree. xaw ma ko billaahi. ñaata combat nga bëre. xaw ma la déggoo ñaata combat nga bëre. même bu ma bëree benn combat tamit xaw ma la du ma bëree ak yow. dix combat laa bëree. huit victoire deux man benn combat laa bëre benn défaite du ma bëree moom. sa problème la booy nii yëpp dañuy ragal booy sëy eh Moussa Balla Gaye kaay Moussa est-ce que lii combat la. si woon lépp jàmm diggante Mori Cargo ak Boy Sey. champion lañ daal en tout cas <laughs> ñaar champion ñaar champion lañ ñaar champion lañ en tout cas loolu sant kay alhamdulilah merci si soxna si. dëgg mais waroon a takk ñaar te Lamine taxul. léegi teg sa bakkan Lamine aaw takk aawa nga soog a takk ñaar loolu yoon. sëñ yaakaaroon ne benn nga yor. man may gis gars yi di kii yëpp nekk dafa soo ñaari yàlla la jik ñaareel la jik booy ni yëpp dañuy ruux dañuy delloo. tëgg journée bi buñ nee Thiam production baaba jaw mi moo tax moo tëgg bés bi xulle waa def 100 pour cent doomu Medina wax na dëgg ànd ak ki xam ne nii moom mooy Modou Roubé Baba. 100 pour saa doomu Medina. waaw sëñ bi waaw dafa leex. waaw yaa ngi nii de. waaw moom jeune la ba pare daa tëgg ay ñun li leen bëgg barki Seydina Mohamed yow xooloo xooloo fi nga dëkk da xool liy doxal làmb nga di ko def promoteur nag bu noonu moom noonu lay mel ñun loolu lañ bëgg ci yow taxawuñu pour di la jaay wala di la di la wax dara mais lépp loo sumb rek yàlla nga ci am ndam. sànq ma tey maa ngi koy dégg yàlla xam na loolu. liy doxal làmb rek lañ gëm. ba aduna aduna amul solo oyof oyof nekk taal moo solo baag Sëriñ Tuubaa billaay walaay Babs esa yi am na mbégte mais waaw man tey dama gis stade bi tey bi may dugg si fii yëpp dafa xat am am ñaanu waajur 2007 da musaan dugg si gaal gi di dem sama yaay du àllu mi ma toppal sa ginnaaw ma magi maa ko yaay sama magi mu bëgg laa bëgg saa yoo ma waxee ma faj ko loolu laa bëgg baag Seexu Xadim. tey sa sedd na de. guy ba pare lancer message. Medina benn bopp la. kenn mënu ko xam ñaar. lam lam politique yi. jeune yan leen topp nañ gëm suñu bopp nangoo liggéey. amul leneen. li nga fa ñaaw xeeb amoon Medina béykat dem dama rus sax baag Sëriñ Tuubaa dama rus Babs. rafetul. sama làmb ji am benn lëm pël politicien bu tax ne def naa si 500 ndax gëmuma leen. barke Serigne Touba du Cheikh ba du Bamba Fall du kenn soxlawu ma ko ndax ndax dañuy jaxase jeunes yi loolu rafetul barke Serigne Touba loolu rafetul xeex bi mètre bi passé jeunes yi di xeex seen biir loolu naay sul barke Serigne Touba mais kii nee na combat am gars yi dañ doo doo fexe mu bëri kuy gi 95 waa dëkki lamb ñoo ko tëggoon mais jotuñu avance dama bëgg combat bi nga taxawal ko maa guy 95 bay laa bul faale Pikine waaw damay bañ sama kàddu jiitu moo ba te du ma ko def mais incha allah suy passé le 10 bi. le 10 bi ah naa xool ANCAR ni ma ko amul problème kon léegi leer na. leer na leer na dama ko ñaanal gudd fan ak wér-gu-yaram parce que man dama gëm lu muy def nii man jeune rek man jeune rek ñoo ma ñor barke alxuraan lu muy def nii dama ko bëgg parce que man damay xeexal mbëri ndaw yi làmb ji nag yàqu na barke alxuraanu karim mais jàmbaar dama bëgg nga jàppale ñu barki am yow foof bas yow kontaan naa si yow barki sëriñ Tuubaa moo am na du laaj dama mer sax maa ko bas muy laaj ñu bëgg a def ni def arrestation laa doon laaj rek mais man caam laa bokk man production laa def si caam defal man maa la ko wax yow sama waay borom xol bu naay jaajëf B52 kon mu ngi noonu yi dem kookoy Thiam production xul la ñuy dugg jox gaa yi làmb. loo yëg. sant yàlla rek. tey da ngaa waa Pikine a topp sama ginnaaw rek. et waa Pikine koo wax mu ne soq tey. ñoo ma gën a bëgg bis bi. lan moo la fej loo ginte cere ndawal. man keppaaru Fallaye Balde laa yoroo. te doomu Pikine laa. yàlla na jàmm yàgg. tey da ngaa séréere tey. bis bee ko naa ay rabal. dama bëgg a woon waa Pikine ni leen. xale màgg na bar suñ Tuuba. cey soq. soqa ngi noonu. doomu Pikine a ngongu. oo oh, soqa boole. mbër mu saf mbër a ngi nii. soo dégg-dégg. na ko door mu daanu di. des na la door nga daanu. mu ngay miir. ay waay door mu daanu waay. doomu burtan moo. kan moo ciy doomu buur tan Africa Pip doomu buuru tan maa xam baayam Moodu Anta. baay balaa xam. ancien tan ca école de booy bambara. ak ñoom ak ñoom kële. waaju xees dafa booy bambara ñoom caat. waaw. E, doomu buuru tan Africa Pip mi saf nay loxo de. Africa Pip saf ngay loxo. waaye yu contact mi day. yu contact bàyyi ci xel la jóge yu li mu jël sànq dis na de. ah yu lim jël bu ma ko jëloon daw. Modou li yu li jël waaye yow nag yaa ngaa daw de. yee yow teel ngaa bàyyi bëri. non baba yàgguma daw mais. Modou Anta ya da nga koo teel a bàyyi. non arrêt ci kanam baba dafa. ñëw jël micro bi bàyyi bëri. micro bi moo gën neex nag. moo gën a wóor ay dóorante daa ay dem ardo. fekk naa la terrain ngelaw. billaay maa la ko wax. Zal ba wala xale ba dëkk Grand Dakar. Boy Dakar Boy Dakar. ma fekk la terrain banque ba yewit billahi waaw Ada Fass di tooñ ba pat Ada Fass booba dugagul arène tey loolu affaire bu garaaw xam nga dañoo yàgg ci suuf maa la ko wax ku yàgg ci teen ba Anta ngi nii maa ngi nii baaba Modou Anta mel ni mi ngeen xam mais ba tey teg eh, eh gis nga xale bi wax na de xale bi waane la de te pànk la de mu ngi koy jaay ji koy Grand Dakar de dinañ la door nga daanu yu contact waa yu contact de eh yu contact yu dinañ la dóor nga daanu ay waay ay waay doomu buuru tan ji soxor na de maa ngi seen deret dellu ci waay acca waaw waaw waaw maa ngi lay ziar. delloo ziar bu ci loo ne. maa ngi si jàmm. li nga solo nii mooy ban solo. li mooy jaraaf. dañoo bëgg a dekkalaat lébu gi indiwaat cosaan moo tax ñu def nii ñu na xale yi. yéen fu ñun quartier Thiam production lañ dëkk ay ay njabootam lañ waaw. li nga tee lu mu do lii kaanu jaraaf la am na lu ne am na jaan am na nit am na ay pektaaw am na ay per ay jaajag lépp a ngi ci biir waaw. lébu yaa ngooŋu c'est que grand image bi moo rafet image bi moo rafet. sa gàttaay bi booy image bi moo rafet. non oh. image bi moo rafet. nu mu rafetee. xam nga la moo tax mu rafet parce que keroog dama seetaan dama lire journaux yi drapeau chef de la ngeen fa def ñëpp bind ko mu rafet trop diwa bu doy waar moo leen fekkee ngeen taxaw di waxtaan il faut que ma wax ak yéen parce que. ñun naruñu woon wax sax mais dama leen moom sama digganteeg moom du tey. dama nga dox jox ma nopp bu baax bi man moomu ma Futurs Médias ba ñuy sos Futurs Médias fekkewu ma la ko fa indi xaw ma ko mais man ak moom ba ñuy nas ni dañuy liggéey ëpp na 15 ans. yàlla dogal ko tey na 15 ans est-ce que Messi bi ñu indee Neymar daa daw est-ce que euh, euh, Mbappé bi ñu indee Neymar daa daw. est-ce que Christ ba mu demee juif waa juif dañoo daw koo gis mu soxor rek li muy def mënu ko kii c'est un grand top et Futurs Médias décroché lu mag te yéen ñii xam ngeen ko xam nga ñan ñoo am problème xam ñan ñoo am problème xam ñan ñoo am problème mooy téléspectateurs yi wala kii kii day wax rek waaw man waxa tax ma siyaare ji yonent bi mais kii dem naa ñetti yoon ci alquran man lay waatal ci alquran billahi wallahi taalahi sama idole ngi billahi wallahi taalahi xoolal man bekaay dong xoolal bekaay dong laa bëgg a ni moom waaye kii mooy Lamine Samba waaw waaju baax la ñoom ñaar mais kii mooy Malick Thiandoum bu TFM egg ci ay copains ay copains ngeen mais Kara Kara loo yëg. ay xarit waroon du fayee jox kii àllarba bi àll bi neex tàkk kenn ñemewu fi moom moo xuus jàll kenn gungewu ko léegi nag bu yooyu yëpp amee Malick Thiandoum est venu chez lui. ñun fi ñu nekk mooy Real de Madrid laaj ko xam na ci dara. ah TFM mooy laaj ko laaj ko. père TFM mooy Real. TFM mooy UEFA <laughs> mooy lépp. wuy ma man ñaani copain yu bees yi laa doon nuyu si rek di leen ñaanal jàmm eh, du bees du bees <laughs> man maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di sargal di leen ñaanal seen ànd bi doon àndu jàmm àndu liggéey te ci seen ànd bi ah na yàlla ci làmb gën a suqaliku man dama leen a seen rek ma ree ba bëgg a dee. ñëw di leen tooñ il faut am humour ma may la benn exclusivité. Malick Thiandoum ñëw na TFM. <laughs> ma may la benn exclusivité. lay di tigre ma nga Bantamba TV. <laughs> maa ngi lay bëggee. maa ngi lay bëggee bu wér sama waaj. Kanji production. waaw moo na mi Babacar. doomu ndeyu Waly Ballago loolu de boo ko waxoon pour ñu may la Clémentine. sa way ba ba ma ko déggee sama yaram dafa daw. loolu hymne national bu dul fayeti la. kenn mënatu koo dindi mais tey moom vraiment kontaan nañ ndax ndax dañu ñëw ji journée boo xamante ne bii ki ko tëgg day suñu xarit ñu am lu ñu séq bokk fu ñu nekk muy Médina ndax ñun wax dëgg yàlla xam nañ ku ñu gis xam ne waa Médina lañu mu wax ne ñu nañ ñëw jàpp ci loolu moo waral tey ñu ñëw jàpp ci apporter suñu soutien taxaw ci porte bi depuis loolu mais tey nag làmb ñu neex la ndax noo seulement Jacob Balde ak ki nga xam ne mooy Mbagnick Keene kii di doomi champion kii di sëtëb champion ba pare style yi ñu tolloo taille tolloo poids ba pare tolloo bëre ñoom ñaar ñëpp di ay bërekat mais ku ci juum ci bëri sa moroom nax la ku njëkk a déclenché song yaa moom làmb ji. Jacob ak euh, ak ak Mbagnick ku njëkk a déclenché. dama ne ku njëkk a dox wuti sa morom pour jàpp yaa moom làmb ji kuy xaar bokkoo ndax ñoom ñaar kenn mënu ci xaar ay attaquant lañ donc ku njëkk a attaqué rek fekk nga sa morom ci li man waaw. kanji ba ci kanam. waaye nag diggante soq ak gàmmu Gueye. te damaa gis gàmmu gi indi làmbu waaw damaa gis mu sol xaftaan sol leneen loo xamante ni bi da nga koy xam ne kii dafa indi làmb li arrangé soq dëggantaan mooy wàcc ci tànkam bu déclassé mu daw jàppante moom te bañ koo may combat distance ndax bul fàtte ne gàmmu xeexkat la soq na toog ci tànkam sinon waaj dee xeex ak moom bu ne bërit mu yeesal ak moom te daa man maap Mamor Mamor ziar naa. maa ngi lay delloo ziar. tey loolu booleeg Balla man Balla laa bëgg ba mu jeex. parce sëriñ Serigne Fallou Ibou Balla nekk sama xarit fanaan sama kër te combat bi tax wóor na Serigne Touba suñu kër yi ñoo jàkkaarloo woon ñu toj seen kër mu jógee Kaolack ñëw fii nii xam nga nit la quoi dama ko respecté sama gaañ la sama xarit la Ibou waxal ak ñii. Babacar waxal moo daa nekk man doomam laa man doomam laa. doom doomam laa kii itam sama xarit xanaa mu daa koy jënguwaayam ci kaw mi daan ko. ndeysaan Double Moteur ak ay pitax ak ay piccam bàyyi na ay picc yu bari muy naaw Double Moteur a ngi noonu Double Moteur a ngoongu piccam boo xoolee Double Moteur moog Zal Baol ñoo bokk benn écrit Abdoulaat Ndiaye a ngi leen di xëcc ci géew bi ndaysaan cey làmb cey làmb lu mu yor di koko ko warale Double Moteur am na lu mu yor Quench waay xoolal Quench ak lébu yi ndaysaan baba lamb ji yëngalati nga ko de lamb xala day saf baag segantu ay xala lan man li laa gëm des na am na leneen ñuy ñëw ñu ay xala ba paf day saf billaay walaay cay làmb borom dama ne la borom baax bu tëddee day nelaw kii xoolal lu mu def day baax parce que dafa yërëm doomu aadama yi di dimbali waa Médina di jënd ay nag di dimbali waatee di def lépp sama nit sama doomu ndey barki maam Cheikh Fall Médina dañ ko bëgg di jàppale sënu Médina yara Quench waa Quench doo wax man yow e caat o caat o caatu yaraax caatu yaraax a ngongu caat kaay caat caat kaay mais caat gis naa Sall Bawol di la topp rek dafa tiit dafa tiit xool Double Moteur rek Quench Double ak Quench Double Moteur Quench ñu ngay waxante caat maa ngi lay waaw ñu ngi ñu ngi leen di fay ah, mu mel ni la ko seen combat la di juillet la léegi yaag Zal looy wax ci combat bi waaw combat bi li ma ci wax rek mooy ni ma doon waajee parce que tamit aussi ñun mënuñu leen lul maanaam topp ndigal bés bi ñëw incha allah ñu def li war a def Zal Baol ma teg pression man yaraax laa dëkk le lion de yaraax ngay wax lu indi incha allah ma indi lu ko gën a lamb ji daf maa jaral na liggéey nag caatu yaraax du loolu moo koy daan ay boo yoroo ma mbot la ci kattanu suñu borom man du ma xeeb mbër sànq ba def may provoqué nag ci ay saaga ci ay kàllaama yu nekk mais man dama am respect non à la violence nee naa ko dañ ko yemale si li mu mais ci kàttanu yàlla su ma ko dabee booy saaraan laa koy tegal kii dama ko jaayee yaraax dama ko yóbbu maire kecax ko. say combat day say combat day gaaw trop. sa combat i mujj fii dafa gaaw. prix bu nekk deux heures de temps tam da koy nekk mais xale laa dañ maa yónni yoo di ma li war ci lamb ji ko bàyyi incha allah na pare lépp nag man maa ngi pare benn bis la day jeex abara ma seeti ko ci kàttanu suñu borom jaajëf gars yi. kontaan ci yow maa ngi gërëm ñëpp. sa ko wàcc na. ñu nga ca géew ba kay ñu nga ca géew ba de Mbagnick Kaïré combat bi ni mu jeex waaw ni mu jeexee neexuñu mais def nañ lu ñu waroon moo am cinq avertissement man ñaari avertissement rek laa am. lan tax nga koy dàq muy dem ci saako. waaw ah, xëy na loolu moom la mais du man waaw ñu ngi sant yàlla bu baax lan moo tax bëre woo nga xeex rek. non kon bi wax ci sax lii la nangul bëre teel teel teel. xool xaal bi boo xoolee Gamou Gueye moo toj xaal bi soq moo saraxel yi cey lamb xool xaal bi xaal maa ngi ñëw laay maa ngi lay baaba maa ngi lay fay ci loo ne ginnaaw bañ sant yàlla julli ci yonent bi ñu ngi sant suñu ñaari waajur di sant suñu sëriñ sëñ ab sàkkoor mu sëñ Cheikh Fall Ngunda di ñaanal sëñ Muntaxa mu yàgg fi di ñaanal sëñ Cheikh Jëmb mu yàgg fi di ñaanal sëñ sëñ Mbay si Mansour ak kilifa diine kilifa aada yëpp ñu yàgg fi lool. sa combat ak caatu yof daa taxaw. sama combat ak caatu yof taxaw na ba ñu war a ñëw def remise de drapeau bi may ñëw pour def première face à face bi ci apéance bi lañ ma woon ni ma caatu yof delloo na bi loolu laa ci am moo waral tey ma ñëw pour leeral li tax mu delloo ko nag moo ko xam waaw moo ay mbokkam mais man moom bëgg bëre bañ bëre ndax maa ngi ci làmb dama ci saf-saf am lu may jël si barke Modou mu nga fa mu ngi ci jàmm. moom kooku ñu ngi wax combat am yaakaar naa fi mu nekk nii. waaw combat am ak Baboy Gaston mu ngi ko doon dox ndax Baboy neen day defar retour sori woon nañ ci daal waaw xam naa ay dernier réglage yu ndaw a ci des rek pour combat bi taxaw waaw. kon yaa ngi xaar daal yow fi mu nekk nii. maa ngi xaar maa ngi xaar yow xam nga ni sama lamb du yomb maa ngi xaar de barke alxuraanu karim jaajëf Babacar jaajëf. Kaaw Cissé numéro 2. Agos Kaaw Gour waay waay déggal ak Modou Séréer Modou Séréer ngeen mboolu xonq li école Cheikh Mbaba daw na jàppante ak moom eh, ay waay waaye Modou Séréer lu la dal Modou Séréer mii ko jot ay waay plaqué nañ ko mu jaaxaan plaqué nañu Modou Séréer xool ko ni mu tooge xool Modou Séréer ni mu toogee Modou Séréer daa waaru Modou Séréer daa waaru oh daa waaru waaye li yëkk taf mu toog mbër maa ngi lay eh, maa ngi lay fay bu baax baax maa ngi sàmm bi daa gaaw non dama gëm sama bopp liggéey lu billaahi gàmmu gee ngi noonu ànd ak ak doomu dangu Youssou Ndour ndeysaan mu ngi eesu fewu ay étirement lay def gars di ko sotti ndox dangoo koy étiré. bi si ginnaaw lemal bi si ginnaaw bi si ginnaaw ngay lem nii rek. dangu. Eh, nanga mu seen xel dal bu baax a baax ayca fii quatre ans ah, fii ñu dem fii ayca ayca loolu. ndeysaan. Gamou maa ngi lay. maa lay fay Babacar. Gamou noo ñëwee tey. ànd ak sama papa rek ak sama grand yi ak sama grand yi di ñaan yàlla na yàlla defal rek waaw. pare nga fi mu nekk. pare nañ waaw. waaw pare nañ waaw. waa ji si lu la woo nga wuyu ko tey. ah fu mu la woo fekk ko fa. incha allahu rabbi bu neexee yàlla di ñaan yàlla may ñu ndam incha allah waaw. daal di wax waa Tëngéej. di wax waa Tëngéej ñaanal ma rek am ndam andil ñu ko allah waaw. boo gëstoo da gis sa mbokk yëpp ñëw. waaw waaw kontaan rek Babacar jaajëf Babacar. Forman borom Mermoz. waaw dëgg la de ak Kamal Salame. ak Salame na ko yàlla yërëm. ak Mor Fadam. waaw. lu tëgg tas. dëgg la. mais tey ci ginnaaw xale yi nga ànd xale bu mel ni Gamou Gueye. waaw dëgg la. digganteem ak noo ko gisee. non wax ci jéem lu ñuy wax am at. ba at mi jeex ba bés na tey wax ji jéem wax ji jéem a gàmmu gay na yàgg na. soq boo ndee xeex arrangé na leen. soq lu mu indi baax na. soq lu mu baax na ndax moonu may sens kon lu mu indi baax na. am na solo kontaan si. ah naa ci. lu mu indi rek dina ko fekk moo tax ma ne lu mu indi baax na kontaan ci yow. moom mi am jabar ami doom mu mënee andi lu metti si xale bu amul jabar amul doom kon dama ni lu mu andi baax na. waaye siyaar naa la wér. ci loolu taw fekkee sant yàlla. waaw xel mi est dal na fi mu nekk nii. xel moom dal na de wax dëgg yàlla boo xoolee. ay minutes a des de. waaw ay minutes a des léegi mu leer incha allah léegi mu leer. formande mi andi gàmmu Gueye nan lu ngeen andi baax na. waaw ah, baax na moom si loolu moom mi mu yaakaar loolu la wax rek ñun li ñu liggéey loolu lañ jëm waaw yàlla bu baax na yàlla ñu yàlla may. bu gaawee lépp arrangé na la. yéexee bu gaawee lépp si moom la rek. waaye ñun moom lu ñu gëm ba gëm ko mooy lu ñu woor bu at bi sifflé bu dëggalee boobu laa mujj am une minute waaw loolu dafa leer incha allah yàlla baax na. soq lu mu tee lii ak fett la wala lan fett na benn. ku baax moytul yow. sama caméraman. maa bañ cee bi yoonam ne. chef yow may feles gàmmu gay taxaw. bu feles bi rëccee ba dal la. ma hommage à Papa Yade tey lu ko waral. suñu frère la mook Zil Balde Junior ñu ak ñoom ñoo bokk génération ñun defaluñu yàlla lu tax yàlla bàyyi ñu fi. dug jàmbaar dug dara. seen waxtoo jot rek te yàlla kenn du xëccoog moom ñu leen di rendre hommage di wane ni chaque jour suñu xelang si ñoom te duñu leen mës a fàtte yàlla na leen yàlla yërëm te xaare leen àjjana firdawsi Forman xam nga ko père Forman. père Forman waaw suñu papa. nee na tey loo andi fekk ko fi. non garaawul dégg naa lim wax lépp mais li wér te wóor mooy suñu papa la maa ngi koy ñaanal gudd fan ak wér gu yaram mag gàmmu yëpp ay doomam lañ loolu bu ko waxee day wax pour lamb ji neex rek suñu papa la. lamb ji day yàgg. lu mu laaj. ñaari mbër yaa ngi ci. ñaari mbër yaa ngi ci géew bi ba tey dara xewagul de ay waay bëre leen waay quatre avertissement ci ay xale Mamor jël na ko daan na ko Mamor daan na ko Mamor daan na ko Mamor daan na ko wala wala Paul ko daan ah coow am na de ah way Mamor daan ko Mamor daan na Paul oh Paul waaru na xoolal Paul daa wees lan toog moom xullee arbitre ba nee na Mamor daan na Paul. félicitations. merci Babacar musuma bëree mais am na lu ma la wax man daa Fass Mbao dama ko war a yóbbu sori si làmb mën naa ko am naa jom bi naa nangu naa entraîné ne sama combat bi un million laas dugal barke Seydina Mouhamad Ahmed Lo sama mag Père Zora Père Cissé borom marché Kermel Koudou Sow Grand Zal Ndir Amane Ndiaye jolof jolof yëpp dañ see jàpp ñoom Baba Ndiaye bee maas. mais waaj na la daanuwul waaj na la daanuwul. kan. Paul bu daanuwul moo xam. léegi foo maa ngi yóbbu sama victoire. waaw sama xarit maa ngi lay fay. ci sama xarit sama soppe dama laa bëggal sama bopp yow. barke Serigne Saliou Mbacké dama laa bëgg. su ma jàppee sama télé YouTube. bëgguma seetaan beneen reporteru lamb bu dul yow. ak Lamine. ma leen ñaan nag yaa lamin Lamine seen diwo boobu ngeen di def. bu leen ko bàyyi neex na askan bi. maa ngi lay fay di wax na la. tey noo dund tey noo dund lamb ji. nag tey li ma fi indi ba bëri. Sokh day doomu Pikine may doomu Pikine muy sama rakk sama xarit bu Pikine yëngoo xam ne man damay yëngu ma ñëw supporté si ba pare su ko samay nawle muy Assane Bongo ak El Hadj Kayta ma gunge si woon Assane Bongo waaw kon cër yi ma fi indi dafa bari yaa ngi waajal la douze. luy loolu loolu kay mooy xew. lépp mën naa xew lépp. ak kan. ah xam nga ne waa dafa namm Sénégalais yi Sénégalais yi namm ko. te grand théâtre yebul waali grand théâtre yebul waali ba la douze ba la douze fukk ak ba fukk ak ñaar Gamou Gueye continuer am naa technicien bu ma toogal Pape Diagne lañ koy wax Pape Diagne maa ngi lay ziar. maa ngi lay fay Babacar. yaakaar naa ñaari mbër yaa ngi ci géew bi. waaw bi ma leen summeeku nañu ba pare. waaw li mooy summeeku dongalu. boo xoolee ñaari mbër ak public bi ñu andi. non ki daanu dama ko yërëm Babacar. dañuy ñaari champion nag. mais bu ñu jàppantee ni runkum. waaw man la képp doole. bu ñu waaw bu ñu mais nag dafa am avantage bu gàmmu gay am. ban la mooy moo suturalonge. waaw buy xeex benn benn. moom mooy am avantage. arbitre soufflé na Pape Diagne maa ngi ñëwaat arbitre na waaw. maa ngi ñëwaat. ndaysaan tey la dimanche. 6 juin 2021. ak Thiam production. lañ ko waroon a bëre am na at mars. suba lañ koy bëre coronavirus ñëw. ñu annulé lépp lu yëngu-yëngu ci réew mi. waaye tey nag ah lii mooy yegg rek ndaysaan xulle bu yoon jeexul waaxu di jeex soq gëdd na nuyu naa koy suivre Equivox ana Samba Kara taalibe maam Cernu borom daaru Samba Kara sama waajooju gàmmu gee ngi liwaatoog soq ndaysaan ana waa Pikin Isaa bu ama seen Lamine bu ama seen Ali bu ama Metzo ay waa Pikin lañu seen bëre bëre muy soq waaye ana grand lay Ndiaye lébu bi ana Ibra bu gàmmu géey eh ñaari mbër yaa ngoog ci géew bi waaye xulle remercier naa ñëpp sant ñëpp waaye Moussa Dia Abdou Waxal Matar Saane ak lamin bilaay kontaan naa ci yéen ñoo dem ba dëkk ba ndeysaan taal oto fañ ma doon maye soxna sëdi ca tàllañ ci muy nuyu waa tàllañ ci yëpp nag waaye waa ak yaay aw ma seen fay yàlla na seen jàmm yaag sama dëkk boobu taxawaay bi rafet na waaye ñaari mbër yaa ngi lewaatoo ana Assane teg si Textile kenn du yow maa ngi lay bégee ñaari mbër yaa ngi lewaatoo Omar Tawa Marsa Salem ku ma jàppalee ngoongu maa ngi koy bégee moom tamit lii du si mën a ñàkk ñaari mbër yaa ngi lewaatoo tey baaram Samba Kara ñaari mbër yaa ngi lewaatoo mbay bopp ñu naan ko mbeng mbeng bokk ca ak yaay sama rakk jooju laa lay la laam la nga balaa kera ak say lunette mbeng bopp maa ngi lay bëgg di nuyu booy yépp ñoom jib seen daawuda bopp soq ak gàmmu gay soq gàmmu gay dara xewagul de Gamou këtt na ko eh kii soq ko. quatre appuis soq daan ko oh Gamou Gueye daanu na quatre la def.